mooy man damaa wog bëgg a wax rek fii révélation ne waaw daa jëm daa jënde doomi ndeyam daa jël doomi ndeyam jaay ko jënde ko doomi baayam daa jël doomi ndeyam jënde ko doomi baayam waaw ah lu tax wax lépp amadu Sall la Amadou Sall Amadou Sall waaw relation bart ak Amadou Sall moo dem ba jur relation Barth ak Macky ah, ah oui loolooy dëgg moom waaw oui loolooy loolooy li am Amadou Sall ak Amadou ah, Sall ak Barth ñoo def nii dénk ay xarit lañ voilà nit nag boo jàppee doomam waaw jàpp nga ko dëgg la dégg loolu moo tax Bart ak Macky mën a wax hmm. waxee ko kër ma kër Amadou kër Amadou oui waaw loolu la demee hmm.